بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تحلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أما ndax dikkal na la waxtaanu la nga xam ne day yiir ay tiitaange yi yiir yowm alqiyaama wujuhun yowma idin xaashia ay kanam de bisi keroog dana doon kanam yoo xam ne yu toroxtaange nekk la aamilatun nasiba kanam yu jëfoon yu sonnoon ci seen jëf ya tasla naaran xaamiya des na leen tabbal ci sawara woo xam ne fas tàngaay di yem fa la yem ñu ngi noonu mooy sawara boo xam ne bu tàng la tusqa min aynin aaniya des na leen nandal ci diig boo xam ne nii moom it fa tàngaayu ndox mu tàng yem fa la yem laysa lahum taamun illa min daria du leen fa ñeel aw ñam lu dul daria di garab goo xam ne doom yi muy génne lépp ay dégle laa yusminu du leen duufal wala yughni min juu ca du leen jëriñ ca seen xiif ba ñu xiif wujuhu yawma idin naima ay kanam bi si keroog dana doon kanam yu naat yu taaru li sa'yiha radiya ngiree jëfam ja nga xam ne jëfam du ñu gërëm la ñi ngi noonu nekk gërëm la nga xam ne mooy jëf jëm jëfoon fii jannatin aaliya doon ci àjjana yoo xam ne yu kawe lay doon la tasma'u fiha laaxiya kenn du dégg ci àjjana jooje lenn ci waxi puukare fiha aynun jaariya dana nekk ca àjjana ja ay dég dég boo xam ne ma ngay daw fiha sururu marfua dana fa nekk ay lal yoo xam ne yu ñu kawel la wa akwaabi mawdua dana fa nekk ay kopp yu ñu tegale la yu ñu teg wa namaariqu masfuufa dana fa nekkit ay coussin muy ay njeganaay yu ñu arrangé rangale ko wa zarabi yi mabsuusa ak ay tappi yoo xam ne ni moom it ña ngi ko tasaare ca palais yaak jardin ya mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ni ndax dikkal na la waxtaanu bis boobu di yiiraate ca mbokk bis penc bis bu màgg la doomu aadama yi la leen fay teeru mooy tiitaange gu mat sëkk tiitaange goo xam ne ñépp dañuy def yaramu neen waaye kenn du xalaat ndax góor laa dendal wala jigéen su ko defee tiitaange boobu yàlla di boole yonent ak ku dul yonent premier ajjana mooy soo demee ba mucc ci tiitaange gi loolu rek da ngay gis ne tey nekk xiiwal goo xam ne xiiwal gu màgg la ñu ngi noonu ñu ngi mel ne rek tey nga déggoon sa doom bi demoon ca bis ba day bis ba dafa accidenté ñu bari dee nañu nga ànd ak sa tiitaange sa jaaxle bi nga ñëwee fekk moom mu taxaw dara jotu ko xam ngeen loolu xiiwal gu rëy la loolu it mucc ci mbugal xiiwal la moo tax suñu borom wax ko ci aay yu bari suñu borom nag nee na bu keroogee daañ gis kanam yoo xam ne ña nga torox ay seen jëmm ya torox moo ne de ci àdduna dañoo liggéey yoon sonnoon ci liggéey ba liggéey ba imma dañoo fàtte woon daje seen boroom di kër këri ci biir àdduna dajale immeuble am ay bateau am sax xëy na ay avion lu nañu dajale ko am ko ku mel noonu bu demee alaxira dara la ko loolu dul jëriñ moom lañ doon jàng ca gannaaw ma aghna anni maliya eway alal ji ma dajal woon tey jëriñu ma dara gannaaw ba am na ci ñeneen ñoo xam ne ni it ci yoonu jaamu yàlla lañ doon liggéey na doon ñooñu ay chrétien lañu ay juif lañu gannaaw ba ñu weddee l'islam di kër këri ci jaamu yàlla wala nga ñëw ci biir l'islam ñoo xam ne créé nañ ci seeni biddaa ñu ngi noonu jàpp ne lu biddaa yooyu moo gën a màgg ponk yi yàlla wàcce woon ñu ngi noonu bilal cam nodd na ba pare benn mbooloo daje fii waaje doon wax yëkkati micro bi ne dégg ngeen nodd gi de julli day baax na koor baax na waaye xam nañ loolu lépp sant ko ëpp doole ci yàlla ñu continuer seen i pocc mbokk loolu da ngay gis ne lu ci bëri dañ ciy sonn di dem ay village yu sori di bay di jël seen alal di joxe jàpp ne loolu mën na remplacer julleeg woor bokk suñu borom mu ne teewul safara lañ dem tasla nooran hamiya loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala ne su ñëwee des na ko tàbbal sawara naam hamiya bu tàng yonent bi alei salaam nee na gën na tàng sawra àdduna juróom ñaar fukki yoon suñu paree yóbbu ko ca aynin aniya ca bu doon kaw suufa ndox moom tàngaay yëpp ngi yem 100 degré soo toogal fii pot di ko baxal dana dem ba 100 degré gannaaw ba day ngir ba jeex amma tàngaayu alaxira yàlla ko xam suñu borom yàlla nee na suqu ma an xamiman fa qad taqat fa qad ta'a am aahum nee na ndox ma nga xamee ni moom la ñuy naan suñ ko naanee day daggate la nga xam ne mooy seen butit yi kon loolu moom kenn du ko yemeleeg ndoxu cent degré bi borom boobu subhanahu wa taala ne gannaaw ñooñu dana am na kanam yoo xam ne kanam yu naat lay doon yu taaru lay doon lan moo waral loolu mooy moom ba mu gisee liggéeyam daa kontaan ci résultat am ndax jox nañ ko téeréem mu gis ne àjjana la jëm mu woo mbokk ya xarit ya um iqra'u kitaabiya xool leen sama résultat ngi nii bu ko defee ku mel noonu ña ngi koy yóbbu ca àjjana yu kawe ya kawe na ci darajaam comme masalan tey boo ñëwoon ci àdduna bi am na lu ñu tuddee hôtel 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles hôtel yi bokkuñu selon seen taar ci seen màggaay naka doon àjjana taaru na ca la fa nekk waaye kawe aussi wax yonente bi alei salatu wasalaam nee na téeméeri daraja la daraja bu nekk ak moromam dafa mel ne seen suñ diggante ak biddiw yi aliya borom boobu subhanahu wa taala ne la nga xamee ne nii moom mooy àjjana jooje kenn du fa dégg benn baat bu neexul benn baat bu neexul mi ngi noonu am na ñu nekk fii ci guddi ci jàkka ji barki yi biig benn waay nekk ci jàkka ji di coow ak i xale ba mujj kenn ci ñi fi nekkoon nag waaye sëñ bi moo moo ñu waay yow tamit ca ay wax yu ñàkk solo wax yu dérangé ay gëdd ki xuloo même ba la concerné wul sax dalay dérangé moo tax suñu borom ne laa tasma fiha laaxiya kenn du fa dégg lu dul salaaman salaaman jàmm rek ak wax ju neex kese ngay dégg biir aljanna ñi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala mu ne dana fa am déeg boo xam ne nii buy daw la ci loolu ay déeg yu bari la suñ borom wax nit ñi ci lu bari bari gannaaw déegi ndox meew sangara ak la nga xam ne mooy lem am na lu ñuy wax zanjabil kawsar tasnim salsabil yàlla xam ñaata ay dex yuy daw ci biir ajjana mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ne seen lal ya lal yu kawe la kawe la ci maanaa te ji boo ñëwoon kaw suuf am na gaa yoo xam ne nii dañuy jënd ay lali un million ay lali deux millions ñu ngi noonu moo ne day nelaw yaa ngi cay nelaw Mor Thiam mii jënd lal vingt mille francs yéen bokk nelaw rek mi ngi noonu ala kulli xaal yooyu bu dee àdduna ak yàq lañ koy tuddee mbokk julit soo bëggee nelaw yu neex dëgg ci lal yu neex fexel ba tabbi aljanna waaw foofu la lal am mi ngi noonu foofu la lal am loolu lu bari ci doomu aadama yi dañ ci dul bàyyi xel bokk àdduna noosukaayu yéeféer la mais du noosukaayu julit ñu bàyyi ci xel bu baax yal na yàlla jéggal ci yaram ahmed saxir loo mi ngeen xam ki sos daaree kokki ibrahima kan mooy borom këru aja binta caw nettali na ma dafa ànd ak benn waayam nee na biñ ñëwee waxtaan bay dem am na benn paquet buñ ko indiloon benn grand bubu boo xam ne nii mooy maison de couture classe yi nekk Dakar kenn xamul valeur bi mu am ak ñoom biñ ko ñëw mu ne waa ji ndax yow doo yóbbu bëgg grand bu bëgg nga ko mu ne ko ah sëñ bi kii kii bëgg naa ko bi mu ko jëlee mu ne ko waaw man di li ma ci jaaxal lii noo koy solee romb borom kër bu amul dépense yaa ngi dégg ñu nga noonu moom foo ko masaan fekk ay fax yu woyof rek lay sol mu nekk lii noo koy sole romb borom kër bu amul dépense mais am na ñoo xam ne jàpp nañ ne bala ñoo jàpp ñoo rey gaynde ga sol loo xam ne nii mbedd mu ñu romb ñëpp ko xool leen mbokk déedéet loolu julli dafa war a moytu yooyu soo bëggee taaru fexeel dem ajjana soo bëggee lu meuble yu taaru fexeel dem ajjana lii mooy la nga xam ne moom la jullit war a bàyyi xel borom boobu subhanahu wa taala ne kopp yaa nga fay tege heure boo bëggee naan mboolem façon jus yaa ngi tege wil daanul mu xalludun ñu ngi wër seen bopp suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne la nga xam ne moom mooy coussin ya ña nga teg ah fu la neex suunu waaye tapp ya it fu la neex boo demee ca biir pale ya demal jardin ya demal fu la neex tapp ya ña nga doon suunu ñu nekk fa mbokk ak seen soxna ya ak seen njaboot ya lii di xéewal gu mag koo xam ne niñ ko jànge yal nañ ko dunde noonu
أفلا يعودون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم barakallahu fiik suñu borom jalla wa ala ni afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat amu ndax nit ñi xooluñu jëm ci giléem yi nit ñi leen binde wa ila samaa'i kayfa rufiat ak asamaan niñ ko yëkkatee wa ila al jibaali kayfa nusibat ak montagne yi nañ ko sampe wa ila al ardi kayfa sutihat ak suuf nañ ko tàllale yow yonent bi fa zakkir innama anta muzakkir waaraateel nekkool dara lu dul kuy waaraate kese lasta alayhim bi musaytir nekkoo koo xam ne dañ leen a teg seen kaw pour nga war leen a garde illa man tawalla wa kafar lu dul ka nga xam ne nag dafa dummooyu daal di weddi fa yuazibuhu llahu alazab al akbar ku mel ni day yàlla dana ko mbugal mbugal ma gën a màgg inna ilayna iyabahum ci ñun yàlla ñoom ñépp la seen delluwaay nekk summa inna alayna xisaabahum gannaaw ba war na ci ñun yàlla ñu regle leen mi ngi noonu mbokk suñu borom mu ne ay yéen ñi weddi day dekki weddi yàlla kenn la xanaa gisu leen giléem niñ ko bindee mbokk giléem nañ ko bindee la ci nekk ci kawteef doy na conférence waaye mën nga caa xam rek lu ñëpp xam mooy bàyyi ma bi gën a rëy bu doomu aadama di yar ci kaw suuf ci an am yi mi ngi noonu nga xam ni boo soxlaa ratt ci meew mu bëri meew mu bëri boo soxlaa ratt ko boo soxlaa mu gardel la ay centaine de kilos mu doxal la lu jege 700 kilomètres wala 1000 kilomètres traverser le désert bi yóbbul la ko mooy taxmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus traversé lu bari yóbbul leen ko ca yàlla def ci moom orientation boo xam ni lu bari ci en jëgg ji àll bi suñ réeree ci désert bi am na magi giléem yi la ñu jël rek jiital bàyyi ko mooy dem ba delloo leen seen dëkk gis ngeen te yow doomu aadama doo xam fay jaar wallahi benn magum naar nettali na ma ci nee na ma boo demee ci côté Mauritanie am na ci ay suuf yoo xam ne dafa nooy ba mel na ndox mais nee na gile yi buñ ci yeggee dañuy sukk di raam di raam di raam ba génn ko doog a jóg taxaw tànkam bi ni ngay demee ci suuf peeral say pëne nga def peeralal pëne yi da ngay paan tànk bi noonu la ko mën a defe mun a dard wow koŋ mi ngi noonu bu nekkee ci kekk bu demee ci beñ mu daal di koy daal di koy peeral ba nga xam ne dana ci dox di dem ak poam yépp tànk bi du nuux te yow doomu aadama boo ci duggee su tànk nuux booleeg encore mbokk heure boo soxlaa ren di mu daal di lay may yàpp wudul jeex booleeg encore téeméeri gileem benn gone gu ndaw mën na leen jëli fi yóbbu leen ba tàmba ñu déggal ko loolu mbokk da ngay gis ak yu dul jeex xéewal yoo xam ne nekk na ci wallahi ci ci ci gileem googu gannaaw mu ne xoolal asamaan ni ma ko yëkkatee xoolal montagne ni ma ko sampee montagne boo gis lu mu gudd gudd au moyen lu toll noonu mi ngi ci biir suuf mi ngi noonu gannaaw ba lii ay mbir la yoo xam ne kaw kaw àll beeg ñépp a ci bokk yem xool gileem ñoom xam nañ ñuy gileem asamaan yi ngi nii montagne yaa ngi nii suuf baa ngi nii donte ne ne lu bari ci golek taax li yàlla bind ci jaww ji daf leen di réer wallaay gone ak Dakar am nañ ci bëri boo ko laajoon yow kan nga gën a toog di xool biddiw yi est ce que mos ñoo toog sax di xool biddiw yi laay wax yaa ngi dégg wala boog bu dee masamin yàgg na de guddi rek nga toog génn kaw asamaan di xool déedéet ndax xam nañu lu ñu nekk ci jaww jekk yi demoon déedéet xale yi Dakar lu mu xam kay yi muy jàng télévision bi muy seetaan ak portable bu muy tiim jeex na mooy loo xam ne seen morom bu ñu te ko def waaye mbokk jàkkaarloo xéewal yàlla li day tax yàlla gën a màgg sa kaw borom boobu nag subhanahu wa taala ni yow yonent bi del waaraate doo dara lu dul aji waaraate santuma la nga forcé leen ba ñu def li ma la sant déedéet mbokk waaraate kat li nga man mooy lii la yàlla wax lii la yonent yàlla wax ca mooy wa ma ala rasul ila al balaax léegi nag yàlla ci boppam moom mooy ka nga xam ni mooy rek la ay jaamam ñoom ñépp ci yàlla la ñuy dellu su ko defee ka nga xam ne moom dafa bañoon a déglu ak waaraate daa di weddi wane gannaaw borom bi nee na sawara ba gën a kawe falaa koy yóbbu ci man la ñuy dellu si ca man rek maa leen di réglé ca loolu it mbokk la julit war a gëm ëllëg ki sibir say dossier kenn dong koy recevoir muy sa borom subhanahu wa taala moom dong it mooy tëral ci ndax sawara nga yeyoo wala àdduna nga yeyoo amul kenn ku lay teeru di jël say dossier di ab avocat wala ab nijaay wala ab sëriñ wala ku mu mën a doon kuy jël say dossier nekk intermédiaire sa diggante ak sa borom directement ngay dem ci sa borom jàngal suratul qaaf wa jaa kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid su ko defee buñ ñëwee malaaka bi ne borom bi hadha ma ladayya atid yàlla suñu borom sa jaam bii day lii li liggéeyoon ci kaw suuf mi ngi noonu sa borom xisaab la boo jógee ci xisaab boobu imma janna wala imma sawara yàlla na yàlla defal ñu àjjana di suñu jubluwaay